lâu đầu ta dài dài là lâu cho đầu ha la la la la la la la la Hallelujah. How long? How long? يا لا لا لا يا بيض الدار يا لا لا لا لا يا بيض الدار lii lu yàgg la. nee lu yàgg la. ndax diggante sëñ Modou Moustapha. ndax diggante sëñ Modou Moustapha Fall. ak sëñ Modou Fall Mbenda. ak sëñ Modou Fall Mbenda. am nañ ci lu mu xam. nee am nañ ci lu mu xam. ci seen ànd. ci seen ànd ba. ci lu wér. ci lu wér. kon nag tey jii. nee kon tey jii. su dellu si waatee. su dellu si waatee. nekkal fi Serigne Modou Moustapha. nekkal fi Serigne Modou Moustapha. ànd ak rakk yi. ànd ak rakkam yi. doom yi ak doom yi. ak taalibe yi. ak taalibe yi. jébbal ko fi toogal Serigne Modou Fall Mbenda. jébbal ko ko fi toogal Serigne Modou Fall Mbenda. te mu toogal fi Cheikh Ibrahima. te nga toogal fi Cheikh Ibrahima Fall. kon loolu wàcc na. nee kon Serigne Cheikh Ndiaye Mbengue wàcc na. xanaa nga ñaanal ko rek. xanaa nga ñaanal ko. moom ñi mu àndal. moom ñi mu àndal. ñu liggéeyal la. ñu liggéeyal la. liggéey bu wér a wér. liggéey bu wér a wér. loolu rek. nee loolu rek. loolu lay sàkko. loolu la Serigne Cheikh di sàkku nee jërëjëf Fall nee loolu la ñu woon na ko jottali jërëjëf Fall. Hmm? ah. Serigne Cheikh Ndiaye Mbengue. Serigne dafa wax ne. Serigne Amdi Fall mii sa jëriñ nee na. lii nga def nee na lii nga def. nangul na ko nangul na la ko. waaye nee na daa wëlbatikuwaat nag. waaye nee na dafa wëlbatikuwaat. ci toolu Cheikh Ibra Fall bii. ci toolu Cheikh Ibra Fall bii. def la ngay jëwriñam. def la ngay jëwriñam. loolu la nee loolu la Serigne Amdi Fall mii wax. bëgg nga dégg ko. bëgg nga dégg ak njaboot gi nga àndal gépp. sëñ Amdi Fall mosom Cheikh Amdi nee na leetar bii mu la jox moo koy firndeel moo koy ko jàngee ñëpp xam ko mais ko jàngee ñëpp xam ko liñ def jërëjëf sëñ Saliou téye na ko déedéet waaw ah, sëñ Fall sëñ rakkam sëñ Assane Ndiarème mu sëñ Modou Moussa Fall Hola, vale, vale. Serigne moom sëñ Mourou Moussa sëñ Mbacke Fall waaw waaw Fall waaw waaw Fall waaw sa xarit sa soppe Serigne Saliou Fall ñëw na nuyoo na sëñ Assane Fall nuyoo na si waaw Fall yaa na Fall Fall sëriñ Moustapha Fall moom Cheikh Modou Moustapha ñu gën koo xam sëriñ Khalifa Xombal moo lay nuyu sëñ Fallou sëriñ Fallilou Fall jëwriñu sëñ Modou Aminta moo la jox am nuyoom noonu sëriñ Falilou Fall. nee benn loxo bi loxob sa loxo ma benn bi ci des loxob sëñ Moustapha. duñ ñaar kenn lan sëñ Moustapha ko jox ab loxoom ni ko yóbbaaleel ma. nee ñu ngi lay ñaanal ci sa darajay maam ja ak Serigne Touba. saa borom wér yaram doon lu wér sa yaram wi. lool. nga yàgg fi lool. ñu ngi yéene liggéeyal maam. ba ni nga liggéey sa maam. ñu ànd koog yow. ñu ànd koog nga defe ko ñu kawe sa njort. ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall. jërëjëf Fall Ndiaga. Cheikh Amdi waaw. ñu dégloo. ñu dégloo. Fallou Galas tuuti rek ñu yeggale. Moussa sëñ Moussa Fall mu sëñ Cheikhouna Fall kees Cheikh Moussa mu sëñ Mouhamadou Yidali Fall moo lay seere noonu mu sëñ Yidali ñu def ndànk-ndànk rek sëriñ Xaadim Fall rakkam mu sëñ Cheikhouna sëñ Mor Ñaxana doomi soxna Oumy Fall ñang waaw baax na de Serigne Cheikh Ndiaye Mbengue jigee suñ Cheikh nee na nga ñaanal ko loolu nga ko wax dégg ko de fas yéene lépp loo ko digal rek dina ko def sëñ Cheikh Ndiaye Mbengue nee na li ko wax dégg ko waaw waa kër sëñ Modou Mbène def noonu la waaw ah, sama nijaay lu mu wax sama nijaay waaw. moo di waaw liggéey Cheikh Rafal boo xam ne bii moom la mën a moom la moom ngeen yoroon waaw da ngeen ko yoroon ci jëm waaw sëriñ bi nee na loola dindi wu ci dara waaw na ngeen ko fa defe woon waaw lépp lu fi sëriñ Cheikh jëm waaw mbaa mu sosoon ko fi ko fi bi nee na mi ngi ci sa loxo tey jii uh-huh. yaa ak say rak waaw ak say doom ma jottali loolu sëñ Fallou sëñ Fallou sëñ Amdi Fall dañuy sëñ Cheikh Mbeng liggéeyu Cheikh Ibra Fall bi nga xam ni moom la Serigne Cheikh Jëmb Fall yore woon ngeen àndoon koog moom loolee lu Serigne Cheikh Jëmb yoroon lépp tey jii tegaan na ko seen loxo teg ko ci loxo Serigne Cheikh Ndiaye Mbengue mii ak rakkam yi ak doomam yi lépp lu ngeen ca def moo ngi yéen a ko ànd moo leen ko digal sëñ Cheikh sëñ bi nee lépp ngi ci sa loxo yaa njaboot gépp ak njabootu Cheikh Ibrahima Fall gi ne ñëpp dégg ndoon loolu lépp a ngi ci loxol sëñ Cheikh Ndiaye Mbengue rawatina liggéey bee ñu bàyyi ko woon nan talal loxo mu ñaanal ko na ñaan waaw wax leen amin nee Cheikh ba Mbacké Serigne Abdou Khadir bi mu ñëwee nee na ko mbale mi mooy sa ndigalu njëkk muy mbalem Touba bi jox na ko ndigal demb ànd ak Serigne Cheikh Mbacké Baye Fall nee mi ngi loxol Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng ñun ñëpp ñu yóbbaale loolu ñu waajal mbale mi rayo leen la la la tuuti ndigal lii nga xam ni moo egsi ca bàyyi ko ci jëwriñu Cheikh Ibra Fall ji Serigne Amdi Fall moom Cheikh Modou Mbenda Fall ñëw ci jëwriñam Serigne Cheikh Fall moom sëñ Modou Moussa Fall wàcc si ci ay rakkam yëpp ñi mu bokkal sëñ Modou Moussa Fall ak ñi mu bokkal Cheikh ak doomam yëpp ak taalibe yi mu jox ko ab leetar mu jox ko sëñ Fallu jëwriñam mu bëgg a jàng nag li nekk ci biir leetar bi ba ñëpp dégg ko ñu déglu sëñ Fallou. sëriñ bi nee na asalaamaaleykum. waaw daa daa ne ca appareil. nee na wa rahmatulahi taala. wa barakaatuhu. sëriñ mooy wax. nee maa mboolem njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gépp bàyyiwuma kenn man Serigne Amdi Moustapha Fall moom Serigne Modou Benda xalifatu maam Cheikh Ibrahima Fall maay wéral ni Serigne Cheikh Fall Ndiaye Mbeng mooy sama jëwriñ ci lu wér nee maa ngi leen koy xamal mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp ndigal ci njëkk mooy liggéeyub mbalem Touba nee ñu waajal ko bu baax nee mi leen di ñaanal ndimbal ci sunu borom jërë jëf nee loolu la wax ci leetar de sëñ Saliou loolu la wax ci de. njaboot gépp dégg nañ ko fas nañ koy ay ne ànd ak yow nag nan ànd woon ak yow rek sëñ bi nee na mu jàngar ko ñu dégg rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatoo maa ngi nuyu mbooleem njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gépp bàyyiwuma kenn man Serigne Amdi Moustapha Fall moom Serigne Modou Mbenda xalifatu maam Cheikh Ibrahima Fall may wéral ni Serigne Cheikh Fall Ndiaye Mbeng mooy sama jëwriñ ci lu wér maa koy xamal mbooleem njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gépp ndigal li ci njëkk mooy mbalem Touba. neen nu waajal ko. bu baax. maa ngi leen di ñaanal. ndimbal ci suñu borom. jërë ngeen jëf. leer na nañ. yàlla na yàgg lool. waaye soriwul kër moom des na de nan ñu ñaanal ñu waajal ko rek sëñ Salim nan ñu ñaanal ñu toog waaj ko rek kër yi soriwul su woote ñu dugg Fadia wax leen amin amin Serigne Cheikh Fall moom Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng amiin